waaye ndox mu tàng lañ naan naan ñu ndox mu sedd waaye naan ñu ndox mu sedd ndox mu tàng lañ naan ndeysaan Ndongo Lo ak jànqalaaru waaw Malick sifflé na ndeysaan Malick koy arbitre le grand arbitre de lutte simple et de lutte avec frappe je parlais français saan ñaari xale yaay noonu Ndongo moo ngeem moo ngeem bu takk si morso bu ñuul bi waaye soq moo ngeem ñuul li yónni si morso yu xonq yi ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi saan jam na ko jam na ko mu bañ jàngalaar eh jamaat na ko moom Ndongo Lo soo xoolee Ndongo jamaat na ko moom Ndongo Lo daw na ko jegsi mu hypercule ko ay waay hypercule waay ay waay puso machine waay o oh. ba mat sëkk waaye puso machine yi bugguma ko waaye reporter yi am nañu moo lak wala kii toog o oh, gisuma ko woon gisuma ko woon barke yàlla gisuma ko woon o oh. a ah, combat maa ngi noonu daw si biir na saan saan Ndongo Lo donc loolu ak jàmbalaar gàggu doo ngi noonu ancien jëkkër yëfu jàmbur mu ngi noonu ndeysaan ànd ak Youssou Ndour maa semal da ngaa doole ah taan Ndongo Lo ak jàngalaar Ndongo Lo ak jàngalaar taan xale yi kenn kenn saako bi i laa bëgg combat xale boole fi ay paañ yu puusante rek ah Ndongo Lo ak Jangalar Ndongo Lo ak Jangalar Ndongo Lo ak Jangalar ñun xam nañ li nga mën a cadré <laughs> waay waay at maa ngi noonu jànkalaar daan booy Dakar noonu booy booy Dakar wala nga cey onze cey ñaari un yo naan xale yaa ngi ne jànkalaar ëpp na ko mu bañ mais xale yaa ngi bëre man bëgg naa li waay lamb waay lamb xale koy def hypercule yi hypercule nee na bëgg nga waag njom defi taboor ali ndimung loolu mbay nga saan bëre leen wax sama put gi daa tooy sa dama mar ah bëna leen waay sama put gi daa daa wow dama bëgg mu tooy faaw ma laal ndox waaye saafara bi xeeñ metti na saafara bi xeeñ doon na waar jàngalaar moom mooy lan jàngalaar rabu àll kuk oh. di nga jiit bu màggee jànkalaar mooy jànk bu am ndaw. la. waaw. ndeysaan. alaaj Baba Diagne dégg naa ah. ay waay Baba Dame. Baba Dame seen yàlla si li ngay wax. ndongo loolu ak jànkalaar. Ndongo Lo la Arjankalar Ndongo Lo Arjankalar jël aas mu bañ ay waay Jankalaar daan na ko Jankalaar daan na ko Jankalaar daan na ko